Kal mundur asu bau hujan. Eh, eh, bisa biram. Nafas serida marfa favoko. Wo, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Wo. Musa cari bermain ini Wow, wow. Selamat Fafoko. yéen ñi nga xam ne yéen a bindu te nekk ci kër ngeen ngeen ngeen ñëw dugg ci làmb ji bu fekkee si ginnaaw ngeen nekk aussi Kam ngel ne somon retour de Mame Demba Sène. Euh, le promoteur. le meilleur de sa fédération muy Demba Sène production. mu organisé nag waaw waaw. démb nekkoon li nga xam ne mooy. tànk yi tey nekk li nga xam ne mooy poids lourd. contact rek jaxat la waaw. aha li nga xam ne. ma ne ko xool ko kanam gi ni mu xoosoo. kenn ko gis laa te ndax compétir naam compétir. maa la lamba métti ndeysaan. c'est le grand champion Calme Ndour. waaw waaw waaw waaw nee naa la mbër la ci biir mbër yi. ndax li nekk ci mbër daa waaw nee na ana nag yi nee na ana nag yi waaw waaw ee mbëru Mor Feraay maa ngi noonu mais Mbagnick fi lay dugg see tamit li nga xam ne mooy lay dugg see tamit Mbagnick tamit fi lay dugg see sama magu jëkkër la Gaskel Diame borom combat bi le 26 yee ak a waaw waaw ay saar la kenn xamul da ay <laughs> waaw waaw jëlë mbañik waaye Bass Ndiel Dione door na ngemb de su loolu weesoo am eh. combat spécial eh gars yi combat <laughs> ne da ko la nga daan laaj waaw waaw waaw waaw la fa bu mag bi eh jël nga kasu we we ngel nag yi ku laaj nag yi